descendez hey wàcc leen aw leen benn par benn awal ni ana borom oto bi awal noonu yow wàccal loolu nii Cô chụp taxaw leen ni benn par benn ci en ligne sur deux hey hey kaay taxaw fi yow. da nga def yow xanaa. waaw yaa moom nit ñi. waaw nga ne ma bëgg a tur ndox.